telle commission culture communication bu Grand Magal bu Touba daal dina ko ay jafe-jafe ci amalug ndaje gile mu di ay jafe-jafe assainissement Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma jàpp ni faaw ñu indi ci ay saafara yu wëy ngir jëli fi mbënd mi définitivement dafa laaj ay investissement yoo xam ne ci ab diir lañ koy war a mën a def moo tax moo tax booy dégg ñu ne am nañ taux de réalisation de quatre-vingt-seize pour cent des engagements donc bu ñu ne danañ indi cent quarante-six euh, citernes mooy indi nañu cent 144 ba 143 système mais pour ñu saafara nag jafe-jafe yi loolu dafa laaj diir dafa laaj ay investissement yoo xamante ne bi euh, dañuy yaakaar rek ne danañ ci jëm ngir ci at yu néew yooyu ñu fàtte ko. faw ñu lali pexe yi itam ngir indi ci dëkk bi lee ndox gu neex gu doy itam. di continuer di bënn ay forage loolu mooy rek pompe nappe bi fi nekk te doo am solution personnellement jàpp ma ne loolu mooy solution bi. Euh, solution bi nga xam ne nag mooy bi borom xam-xam yi wax ne mooy bi gën a wóor mooy ñu ñu jëli ndox mi ca Touba Bogo indi ko ci dëkk bi ndax foofu nab ba rëy na raay boo xam ne am na ñu naan sax même pendant juróom fukki at mën naa dundal Afrique de l'Ouest gépp mën nañ cee naan xam nga kon loolu rëy na wala ñu indi lac de guerre bi fii ci dëkk bi loolu aussi bu ñu ko defee dana nekk solution pérenne. màggal bile dina dugal ci Touba lu toll ci ñatt téeméeri milliards yu toftal juróom fukk. waaye mu mel nii amul njeexital lu am solo ci koom-koomu dëkk boobee. parce que askan wi moom moom moo organisé na war organisé woo ndax koom-koom bi lu caag nuy ñëw di ko jox nit ñi kenn ku nekk yaa war a jóg entreprendre créer sa entreprise. créer sa kër defar sa taxawal sa këru liggéeyukaay. loolee tax njiital commission culture ak communication bu màggal bu Tuubaa bi lee bëgg ñu lali pexe ngir fexe ba ndaw ñi gën cee mën a profito.